li gën a fës ci biir internet bi amee internet yu 24 actu bàkk ba jibati na dañu koy door rek mbas meek tolluwaayam ci biir réew mi niki tey jii rek ci altine ji yem ak ñaar fukki fan ak benn ci weerum décembre atum 2020 Sénégal nag daal ne def lu toll ko 1404 rek ci ay test ci bilo rek 121 ñu ci daal di dikk positif maanaam amee jàngoro ji ci biir 121 yooyu léegi am nañ ci 52 cas contact am ci 69 cas issus de la transmission commune. communautaire 40 patients yi ñu hospitalisé woon rek na ñu ba dinañ delluwaat rek seeni kër li ci gën a doy waar rek mu di cas grave ci réanimation dafa yokk lool ba lim bi mi ngi toll ci 26 cas Sénégal nag daal ne wàññi niki tey rek ci altine ji lu toll ko 6 décès bi mbas mi nag duggee ci réewum Sénégal ak léegi Sénégal wàññi na lu toll ko 17 879 rek ci ay cas positif ci biir loolu rek 16 562 yi rek ñoo ci daal di wér 371 ñàkk ci seen bakkan ñi ñuy saytu nag ci lali hôpital yi ñu ngi toll ci 951 ministre bi rek di gën di ñaax askan bi ñu gën a sàmmonteeg mesure barrières yi ngir xeex bi ñuy xeex mbas mi rek daal di gaaw rek jeex ci mim réew sàmmonteeg mesure barrières yooyu lee tax rek ki nga xamante ni moo di docteur docteur Bousso daal jóg ne waxuma la sax deuxième vague waaye troisième vague ba quatrième vague nañ ko xaarandi ah, ci kaw rek bu ñu nanguwute rek fonk li nga xamante ni rek moo di ah, mesure barrière yooyu li dese yi nag yokk gi nga xamante ni na ko ci diirub 48 heures rek ñu am ci ah, ni moo di Abdoulaye Diouf Sarr di jëwriñ ji ñu dénk rek lépp lu jëm ci wàllum wér-gi-yaram daal amal rek tey jii rek ci altine ab réunion rek d'urgence ngir xam rek lan moo waral yokkute gi nga xamante ni rek nombre de décès yi mi ngi koy yokk rek jamono ji lépp loo xamante ni ruus na te jëm ca rek ca réunion d'urgence boobu lee dinañ leen ko digtal ci suñu yeneen jotaayu xibaar dañuy daal di jubal rek ca diwaanu saint wi ñu gis ne rek jamono ji rek yëngu na lool ginnaaw bi nga xamante ni rek moo di euh, Mansour Faye nekk maire Saint-Louis daal di rek ab dogal ngir bëgg rek tuddee li nga xamante ni moo di avenue Faidherbe ba daal koy bëgg a tuddee ki nga xamante ni rek moo di Macky Sall euh, population Saint-Louis nag daal nañuy jug maire ba futu ñenn ña nag d'accorduñu ci boobule projet waaye Mansour Faye rek nee na dara du ko tee def li nga xamante ni moo di décision boobule mu jël kenn ku dul Macky Sall rek mënu ko koo tere ba tax rek nee na avenue boobu la bis bu ñu ko tuddee Macky Sall dana nekk rek benn opportunité rek ci foofee le lépp lu jëm rek ci wàllum infrastructure rek yu ni mel dafay daal di yomb lool bu ko tuddee rek ki nga xamante ni rek moo di ah, Macky Sall nee na ay avantage rek lay rek mais du jur leneen loo xamante ni rek nekkul avantage rek ca diwaan boobule waaye nag askanu Saint-Louis ah, jamono ji rek mer nañ ba futt rek ngir décision boobee nga xamante ni rek kii di Mansour Faye bëgg na koo rek jël ci avenue boobule dana ko ko tuddeem déet loolee lépp rek danañ ci am lu leera ni ndikki rek suñu yónnee ni jotaayu xibaar lépp loo xamante ni ruusaan na ci rek jëm ca loolee dina leen ko digtalaat dañuy daal di wéyandi rek wax ci Aliou Sall ginnaaw ba ñu ko invité rek ni ki démb rek ca émission lee ñu duppee rek grand jury di am foofee rek ca moom Aliou Sall rek neen li mënut a moo di ndaw lu daal di dajale lu tolloog téeméeri junni daal di koy jël rek bëgg koo jëmale ci li nga xamante ni rek moo di gaal yi te nee loo xamante ni rek ci diggante dund ak dee la nekk mu mel ne rek xaru la moom Aliou Sall loolee rek la daal di wax nee na yoon woo xamante ni rek daanaka xaru la ay problème rek lay jur loo xamante ni moom sax daf leen a mujjee dépassé mu di ndaw yi niñ jugee rek daal di song li nga xamante ni rek moo di tukkib géej gi nee nag dañoo war a arrêté daal di a baax ci som ni ñu ko yëkkati rek mu tolloog téeméeri junni di ko jëmee rek ci tukkin u jaar yoon yi mu mel ne rek propos yu Aliou Sall yooyu day daal di rejoindre yi nga xamante ni ni rek moo di Serigne Bassirou Abdoul Khadr ginnaaw mu waxee ne tukkib géej gi daal ku ko def rek dafa mel ne dangaa daal di xaru te l'islam rek dafa daal di dàq lu ni mel mu mel ne rek yooyu propos dafa daal di dajeek yooyu nga xamante ni nii Serigne Bassirou Abdoul xaadar daal na ko woon yëkkati ñu daal di wax rek ci xale boobee nga xamante ni dañ koo sànniwu rek ci ab basin mu xewoon rek ci ñetti mbaar bokk ci commune bu Djiddah Thiaroye Kaw mu sukkandikoo rek ci Les Échos xam le nag yooyu les information tur ba nag dañ ko daal di abrégé lañ ca jàpp rek mu di PD ay atam toll ci 23 ans moom rek la police daal di teg loxo ñu ko teg loxo rek mu di police bu Thiaroye ginnaaw nag ba ñu ko jàppee lam xam le rek moo di nee na yaayam moo ko daal di obligé ngir mu daal di rey doomam joojule ndax nee na papam bu ko xamee moom moo koy njëkk rey ndaxte doom joojee daf ko daal di am hors mariage maanaam daf ko daal di am te sëyagul moom rek moo xam le yooyu ne looloy tax rek mu daal di rey xale boobulee placé nañ ko nag en garde à vue lépp loo xamante ni rek ruusani na ko jëm ci moom la mbir dañ leen ko toppal ci suñu yeneen ajotaayu xibaar dañuy daal di wax rek ci ki nga xamante ni moo di Tange Tandian ginnaaw ba ñu ko jiiñee ne dafa sàcc li nga xamante ni moo di ay bijoux te ki ko sàcc rek nekkul kenn ku dul Amina loolee nag ma nga xewee foofee rek ca Las Vegas ginnaaw rek événement boobee nga xamante ni rek promoteur bi di moo gétt moo ko fa daal di organiser woon moom Tange Tandian nag dañu ko daal di woon rek ndiki ajuma ji ñu génn ci émission boobu la ñu tuppee confrontation ak kii di Amina nag daal di fay woote en daal di xamle ne ki nga xamante ni moo di Tange Tandian sàcc la ci noonu rek la ñu daal di arrêté appel téléphonique boobee nga xamante ni Amina defoon na ko ca biir émission boobu lee waaye yaatal gi nag ña ko amee rek foofee rek ci Sénégal ginnaaw ki nga xamante ni moo di Amina moo daal di wootee foofee rek ci Sénégal xam ne ne Tange dafa sàcc bijoum valeur u deux millions tax nee na biñ bokkee rek hôtel bi moom ak yeneen ñetti xaritam ñu tekki woon ay bijoux dugal ko ci pochetam bi dugal ko ci saagam daal di koy jën ci rek ci armoire am waaye nag bi mu ñëwaatee gis na ne ki nga xamante ni moo di Tange ubbi na ko ba daal di jël ko daal di demat moom moom nag nee na wul ba ni mu ñibbee rek ndax dafa yaakaar ne ginnaaw ma ko fa jën rek ma nga fa waaye nee na ba mu xoolee daal gis ko fa ci la daal di wooyee ki nga xamante ne ni moo di euh, Tange Tandian ngeen xamal ko ne ko na génne rek ay oram ndax moom moo ko jël waaye Tange daal dafa dal di weddi mbir mi ba mu set wecci te li ci gën a jaaxal rek askan bi moo di kii di Tange nanguuta sori benn yoon rek ci mbir moom le ñu ngi ko koy gi moom lamdu moom daal Tange rek moo ci mën a leeral waaye nangu ca àddu bu mu xóot loolu ki xam ne nag yooyu le kàddu di Amina ginnaaw rek ci ab appel téléphonique moom seqoon nag waa Sénégal moom xam le ne daal kii di Tange Tandian moo sàcc ay bisom mi ngi tolloo ci valeur u 2 millions ñu daal di wéyandi rek wax rek ci benn série boo xamante ni jamono ji rek mi ngi def buzz ci réseau sociaux yi muy série boobu la ñu tuppee rek néegu sëy ginnaaw rek ab séquence bu doy waar boo xamante ne ni démb ba tey ñu ngi koy partagé ci réseaux sociaux yi ci ñaari acteurs yooyu nga xamante ne ni rek def nañ benn image rek bu doy waar ci seen kawlal boobu lee mu mel ne rek kenn rafetlu ko ba tax rek ñu naan ndax Sénégal war nañoo mën a def li ni melam déen ñuy xaar rek ba xam Sénégal yan dogal lay daal di jël rek série boobee nga xamante ne nii rek ah, moo di néegu sëy ginnaaw rek séquence bu doy waar boo xamante ne nii rek ñu ngi koy partagé jamono ji ci réseaux sociaux yi te kenn rek rafetluwu ko mu mel ne nag jamono ji daal frontières yi dañ koo daal di dépassé mu mel ne rek image yooyu la nekkatul lenn loo xamante ni rek dafay yeete mais plutôt day yàq ñi nga xamante ni rek moo di ndaw yi nga xamante ni ñu ngi koy ah, seetaanu ñu daal di wax ci ki nga xamante nii rek moo di Selbé Ndom ginnaaw rek ba mu daal di amee rek ci ab entretien moom Selbé Ndom nag nee na góor jigéen ñi daal képp koo xamante ni rek gisati na leen ñuy def naka sudul noonu nee na moom atte bi nga xamante ni mooy bu gaaw bi nañ dagg rek seeni awra moom Selbé Ndom nag atte na rek li nga xamante ni rek moo di góor jigéen nee na képp ko gisati daal ab góor jigéen muy def naka sudul noonu jël ko rek ngeen dagg seeni awra bu ko defee rek ñeneen góor jigéen yi ñu leen gisee rek danañ daal di bàyyi li nga xamante ni rek moom ña ko doon def ndax nee na loolee rek mooy atte bu gaaw bi ak ah, ki xamle rek yooyu le kàddu mooy ah, Selbé Ndom ah, dañu koy daal di jeexaleek mariage yu Adama bu nekkoon rek ci série Adja Adama nag moom la ñu daal di takk démb mu daal di nekk ki nga xamante ni moo di madame Diop ñu di ko ñaanal rek sëy bu barkeel ak njaboot gu barkeel lii rek moo fi gënoon a fës ami internet yi di daje rek lay doon ba ëllëg ak jàmm.